waa ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar di nuyu Tawfekh Production di ko jaajëfal baax si liggéey bu am solo bi waaw bis bi moom day euh, bis bu mag boo xam ne jàmbaar yu am solo joo xam ne lislaam xam na ko ci saahir xam na ko ci baatin moom a fi bàyyi ko mooy Serigne Abdou Latif di ñaareelu xalifa ci Mame Cheikh Issa Diène nekkoon ci jataay bi 1986 ba 2024 muy taxawaay bu rafet waaye moom nag muy nit koo xam ne euh, kenn du ko waxtaanee te doo tudd alquran kenn du ko waxtaanee te doo tudd ak taalibe kenn du ko waxtaanee te doo tudd ak mbo bàyyi ak mbokk ndax maanaam euh, day nit koo xam ne dafa dafa dafa dafa ubbiku woon ci ci ci ci wàllu yu bari waaye itam ubbiku googu itam mu mu toogoon ci ab baatin boo xam ni akuk wilaaya bu nëbbu la. boo xam ni néewaane nit leeral la ko ni mu la ko mën a leeralee te du bàyyi dara waaye nag nag mu àndaale woon nag am xel moo xam ne xel mu ubbeeku la waaye nag akuk njàmbaar goo xam ne bu lislaam soxla la ndax lislaam mën nga am jumtukaay yëpp am taxawukaay yëpp waaye ñaare boo ko am xel lalul am njàmbaar lalu ko eh, liggéey boobu dafay dafay dafay dafay sooxee moom nag yàlla dafa ko dimbali woon bu fekkoon ni li ñuy tuddee nit dan naan dafa amoon alkamaliya ndax boo ko wàlle boo ko làmbee ci wàllu baatin da koy fekk mu matt nga fekk ko ci wàllu sahir itam fekk ko muy nit koo xam ne ku mat la sori si loolu waaye fenn rek ngay taxaw muy li ñuy tuddee alquranul karim daf see amoon euh, taxawaay boo xam ne euh, ak jagle la ndax maa ngi dégg léegi di waxtaan ak euh, kenn si ak njabootam muy Samadou Fadir Dieng mu dema xamal ne ma sëñ bi de daana def buy diglu lu mel ne ay imam Xusayri wala muy diglu kenn ci euh, ñiy jàng alquran aaye bu nu buggoo déggee dana xam ba mu koy jël bind kañ la ak bind ba nam tolloon ak jamono jooju la si xewoon kon loolu ab cër la ci ci ci alxuraan mu amaat itam lu am solo ndax bi muy toll si di jàng nekk si daara Sëñ Musaa Gey dañuy wax ne Sëñ Basiru xëy jaar na fa laaj ko foo toll mu ne naa maa ngi sootul xaj mu na ko yow kat jàmbaar nga dañuy ànd ci sa waajur ma ma ma wax ko fi nga toll. nee na keroog bi ñu àggee si sa Isa ba wax ko fi mu toll bi mu noppee keroog si Isa nettali na leen loo xam ne keroog loo ko mos sa nettali ni leen moo ne aay bi mu wax ne fi la toll de moom sa Isa bi muy jàng alxuraan ba àgg foofu si la lu mel ne nelawi gam-gam dikkal ko si la gént gis rasulilah sallallahu alayhi wa sallam mu tegtal ko Cheikh mu tegtal ko Cheikh Ahmad al Khadim radiyallahu anhu te fekk aay bi suñu ab latif yam nee bi muy jàng alxuraan suratul hajj aaya boobu si la génte gis yonent bi alayhi salaam mu tegal ko mu tegtal ko Sëriñ Tuubaa ak la sa ak la sa am lépp te it nee na si bis boobu tam la ko yonent bi alayhi salaam firéele li tàmbalee euh, baqara ba suratul hajj si ginnaaw alres mu firil ko alxuraan li tàmbalee suratul hajj ba mina jinnati wa naas moom si Issa Dieng kon kooku relation ak alxuraan lu dëgër la moo tax lu ne daana ko si def si zahir waaye lu ne tam daana ko def si baatin noonu la fonke woon xasida itam ndax foo ko fekk da daa soññee ci ndaw ñi ñuy jàng alxuraan waaye di jàng itam xasida rawatina xasida bi ñuy wax tasiru asir daana ci soñee lu lu bare bari ay waxtaan itam daa nga ci dégg lu bari mu naan leen mbir mi lu mu bari bari na ngeen ci ànd ak pastéef daana baamu waccal aqaid yi mu nawwaraati waccal bi kulliye sa xayraati daana ko baamu lu bare bari di wane ni mbir yëpp ci pastéef la nekk nit ki ndax alal aqaid ku ñëw xësoo woñ nga mboros ma jagari dañuy wax ne njariñ yëpp ci positif la nekk lu mu daa lu daa lu mu daa baamu la daa soññ nit ñi dem ci jàmmu yàlla ndax daan wax ne rajaaw rajaaw rajaaw jannatin bila taati bi sunnatil maahi xururun yaati bëgg a dem àjjana te jàmmoo yàlla lool ak nax sa bopp loolu lépp euh, daana ko wax ci kanamu mbooloo mi leen ci soññi lépp nag boo ko tënkee da ngay gis ni génnul ak taalibe ndax danaa tënk ñëpp ci njaboot gi ñu liggéey jaamu yàlla di tënk seen mbir ci ak taalibe ba lii fi mujj xew sax muy clandestin yi maanaam tukki yi nga xam dañu koy def mu ne clandestin daana si def ay ubbee de wane ni nañ bàyyi tukki yi ñuy tukki te te jaarul si aw yoon ku si am saw këyit na nga ko defar ba mat nga jaar fi nga war a jaar bu sa wërsëg nekkee bitim réew di nga si jot bu sa wërsëg nekkee fi di nga si boole woon na daal ñi gën am solo mooy li jëm si wàllu addina waaye itam amoon na ab cër bu kawee kawe itam ci wàllu alaxira dañuy wax ne nag moom kullu nafsin zaa'iqatul mawti adduna moom ku fi nekk sa liggéey bu matee fokk da ngay dem waaye nag ab liggéeyam moom mat na te itam li ko xam ñëpp xam na ni euh, ni mu ko tàmbalee anam gu rafet la waaye ni mu ko mottalee itam ci anam gu rafet la ñaanal ko rek borom bi tabaaraka taala xaare ko àjjana njaboot gi fi bàyyi itam borom bi sàmm leen aar leen te saxal ñu si ak njub